maa ngi tudd Pape Elimane Sarr di chauffeur U2 chauffeur si maa ngi fi nekk nekk naa fi depuis 2011 laa nekk ci entreprise ba léegi te tout le temps day am ay jafe-jafe yoo xam ne ñun dañ koy jànkoonteel muy jafe-jafe salaire ay tardement salaire yoo xam ne daf ñuy dal tout le temps te amuñu fenn foo xam ne dinañ ko mën fa jooy dinañ ko fa mën a jooytoo. bañ fajal ñu woo nii rek la mën a def tey pour kilifa yi mën koo dégg pour dimbale ñu ci loolu noonu li ñuy wax ni méttitu ñëpp la xëy na man maa fi nekk rek waaye méttitu ñëpp la ñi nekk Thiès nekk tiwaawoon nekk dakaar ñëpp ko yëg ndax dafa doon loo xam dafa metti tey nag ñun ñoo jël suñu suñu matuwaay taxaw ndax taxaw nañ benn yoon taxaw ñaari yoon. bi mooy njetteel bi te buñ ko continuer di def nii noonu lay daj lan la koy jàppoo te day yëkkati xaalis di ko may ñu koy dégg lu toll ni événement ñëw nga war a dem ci say njaboot war a defal say njaboot defaloo leen ngir lan benn jëmm joo xam ne moo la yëkkati yëkkati sa koom jox la ko nga dem faj loolu say faj say soxla joxuñu la ko di la seetaan waxuñu la ñuul na waxuñu la weex na bu fekkoon ne sax fayuñu la ñëw wax ak yow sax ñu mën a wax. waaye doo leen dégg téléphone doo leen gis loolu dafa metti loolu lañ bëgg mu deñ loolu ci boppam lañ bëgg mu deñ naaj bi tàng na tali bi tali bi metti na torop liggéey bi amul liggéey bi amul nu mu metteewul liggéey bi dafa metti te salaire bi demewut noonu xëy na dégg muy maye moo ëpp foofu lu ñuy fay. yaa ngi dégg wax ñu bëggoon lillaahi wa rasul bu ñu mënta bu mën bu salaire mënta yokku sax nañuy fay. yaa ngi dégg bu salaire mënta yokku chaque weer bu dee la cinq mu jox ñu suñu xaalis ñun nag fi mu toll nii man de dama part personnel bañu ma ci ku ma dàq wax ji may wax nii ndax man dëgg laay jiital dëgg laay jiit laay jiital dëgg dëggay jiitu dëggay mujj lii ma yox ni dama sama kanam dafa leer nëbbu ma ci dara Pape Elimane Sarr laa tudd. entreprise bi am naa ci diis ans aw ma embauchement sama contrat dañ koy layam layam ba xam ndax am naam déet te liñ fiy daj fii ñi fi nekk ñëpp ay journalier lañ te bu ñu waxee dañuy jóg ne am nañ contrat am nañ def nii am ni def nii def nii def nii te loolu yëpp dara amu ci te kenn du wax te loolu mënul ne. 8 heures ba 2 heures. buñ nga sax buñ la duñ la may nga naan duñ la may nga lekk duñ la may nga def dara ci fi ñu toll nii buñ fekkee nga toog sax sa daa xañ ci ca loolu waaw. ku ci gaañ wala oto laal la ci jëluñu benn responsable pour faj la say mbokk lay faj kon nag ñuy fay suñu xaalis bi li lay war a suuli loolu lañ bëgg ñu ne la yi Touba sonn nañ trop suñ leen ko waxee suñ leen ko waxu sonn nañ nañu jàppale lay war a suuli nga ñu fay un mois lañ leen yoreel un mois lañ lañ leen may léegi un mois la cinq suñu fa ñu taxaw le cinq fu ñu fay ñu taxaw Diop si yow la ñuy waxal le 5 foo ñu fay élément yu Touba yi dañuy fay dañuy dañuy taxaw circuit gudd na naaj wi tàng na heure bi yàgg na te metti na trop waaw salaire bi baaxut salaire bi baaxut salaire bi baaxul ñetti téeméer fanweer journée ku ko nangu da nga am da sañ bañ la waaye baaxul ñii boroomi kër lañ ñii ay responsable la ñun ñii ay boroomi njaboot lañ yor suñu njaboot ñii boroomi kër lañ événement ba ci suba ga ñu ñuy liggéeyloo nangootuñu ko événement ba ci suba ga ñu ñuy liggéeyloo nangootuñu ko événement bañ bu ñu subal événement ñu ñuy liggéeyloo nangootuñu ko wala ku ñu koy liggéeyal dañ ñuy fay waaw wala ku ñu koy liggéeyal dañ ñuy fay nañ ñu fay li laay war a suuli loolu lañ koy ñaan